man bi ma xam ci maçon dafa naa ay soixante quinze soixante seize euh, taa boobu maa ngi dekkee marché maa ngi dëkk usine Bentali euh, dama doon dem kolo di jindi taa bu marché bi kenn kenn nekku ci yàlla def nag ni ma buggee marché bi su ma yeggee car rapide su ma rombee marché bi damay xool marché bi xool marché bi boo xam ne rapide bi gan su ma ñibbisi damay xool marché boobu boobu rafet bi dem cofil boobu moo nekkoon ci marché bi te xamaguma taa boobu sax amaguma ma capital cinq mille francs waaye yàlla def rek dama bëgg a marché bi ba yàlla def euh, ma daal di génn ñëwaat ay année soixante seize euh, ma jóge fii dem Mauritanie yóbbu bagage ñëw bon ñu ne ma marché ngelaw di Eh, ramas nañu waa marché Ngelaw indi nañ ko marché Ngelaw marché Asalem ci laa topp client yi ñëw fii naar yi indi leen fii ñu jógee marché Ngelaw di eh, ci laa xam marché Asalem ba tey mi maa ngi ci marché si biir marché Asalem taa boobu place dañ ko dañ lay may man place bi su ma bi mu njëkkoon am eh, dafa naa trois cent cinquante franc laa ko amee wut sax cinq cent franc ci laa fay benn booy jël bagage jox ko fayal ko six mois juuti fayal ko six mois añ ak reer pour mu gérer loolu yëpp bugg match bii la euh, ba ci après beneen jamono ñu daal di ramasser di no Senghor mu ne léegi tukulóor yi li ñu jaayee par bëccëg kooku il faut mu fexe leen mu fexe leen ñu mën a toog nañ leen def toog nag il faut ñu ramasser leen yóbbu leen ci match yi ci la indi mu ramasser tukulóor yu bëri indi leen fii ci match yi asilem moo tax saa boobu soo gisee tukulóor bari ci marché bi ci li ma xam loolu ci la bokk benn histoire bi ci am mooy bi ma tukk encore ma tukk soixante-dix-neuf avant ma tukki euh, quatre-vingt soixante-dix-neuf ma xoolaat ba pare fekk place bale xale yi jaay nañ ko ñaari junne mais man suma toujours maa ngi desel bëgg marché bi bon ni ma doon def voyage ak Mauritanie ak fii di ñëw ma bëgg tukki nag dem Zaïre yàlla defa taabum Parcelles Assainies ñu ngi jaay téere bi quarante mille xaw ma quatre-vingt mille bon ma daal di ñëw fii ci marché bi muy soixante-dix-huit comme ça bon ma ko man daal asilem dal bëgg naa asilem ma daal di fekk benn waa ji moom buñ ko refulee soixante-dix-sept benn waa ji dafa bin jëndoon pala cinq cent francs jaay ko pala cinq mille waa ji def ci bagage am bu ma demee bagage am à soixante dix huit soixante dix neuf fekk waa ji mu gën a delloo kong mais amatul xaalis man man ne bëgg naa place ñu ne place bi dañ koy jaay bon moo waa mu ne ma day jaay place bi ak marchandise bi yëpp quatre cent maa ngi am xaalis bëgg tukki ma calculer léegi xaalis bi su ma ko yóbbu ci àll bi amul njëriñ kon xaalis bi fii laa ko war a bay ma dem su ma demee ci loxo nen ma mun liggéey bon ñu ne ma lii dafa seer dafa seer dafa seer man ne ko non non man assurance marché assurance ko bëgg man man ne ko marché ma ko bëgg xamul lu tax man dama jënd ma daal di jënd palaas bi ak valise yëpp quatre cent mille ma daal dem taa boobu euh, benn waa mu ne ma mun nga jënd ay téere ma ne ko man man si bi laa bëgg mu ne ma ah, parce que assurance ma téere su quatre vingt mille wala téere quarante mille da ngay fay ndànk-ndànk ma ne ko déedéet marché assurance laa bëgg bàyyi la mu def li mu ma jënd palaas bi comme que xam naa jaar-jaar match bi xam naa nu mu naa adduna bi nu mu tuuti ñëw naa ma ne toujours dama gérer rek ci ma sas ren yàlla def dama commencé liggéey eh, daanaka dafa mel ne match benn la maa ngi jaay comme ni ma bëggee maa ngi jaay maa ngi jaay maa ngi jaay eh, ci laa xamante ni bari muy soxna may bu Serigne Touba. ndax xamante taa bu maa ngi jaay si rabal soxna may mu xamante moom ma di ko jaay mu ñaanal ma léegi ki ma gis rek ma di koy man laa xam naa ki ma gis rek ma daal di ko teral mu ñaan sakku ñaan boo ma xam gis naa ñeefe na maa ngi xam naa dem naa àll bi xam naa am xaalis ni ñu ko utee su ma def coono boobu bi mu gis foofu su ma ko defee fii rek dem naa ci mu réussir ci laa nekk na boo fu mu toll na tey boo ma histoire ma saasalem yaakaar naa ne histoire bu bu bu neex wax la amul ben sëriñ boo xam ne ki ma fekk sëriñ Abdoulaye Lar ñëw na fi ñaanal marché bi Seydou Nourou ñëw na fi ñaanal marché bi sëriñ Abdou ñëw na fi ñaanal marché bi Thierno Mountaga Tall ñëw na fi ñaanal marché bi yeneen sëriñ bari dem nañ fi ñaanal marché bi ñu ngi wàcc ay kaamil di sarax di génn ay asaka di sarax tey yaakaar naa ne tey tey tey bisum tey tey tey tey tey tey lu néew néew néew néew un million wala deux millions doomu aadama jaan fii tey ban commune moo am loolu place bu doon jaar trois cent cinquante francs wala cinq cent francs tey combien de de lay jaar donc ñaan ak dégg mu solo mais sénégalais nag euh, loolu lañu bañ ba ñu gisee yaa ngi avance ñu ne wala kii nii la ba ñu gisee yaa ngi ah xalaat ñu kii la mais loolu dafa war a jeex bon jafe-jafe bi na bu dee ci wàllu état bi bëri na ba loolu page soo gisee man ma créé benn benn mouvement bu tudd ROCCOL région de républicaine muy commerce de politique xamuñu compte ñun jaay ak jënd ak jaay lañu du ñu génn suñu place mais mairie mairie fonk ñu commerce marchandise leen boo ma soxla même ba ma xam marché soixante seize loo xam ne jar cent mille francs benn def ci du bale du courant du raxas du leneen encaisse rek wala ba dégg est-ce lii léegi avancement soo waxee ne nga soxla mais mairie bi ci moo ñëw ne porte se mais mairie moo ñëw parce que dañu jaay palaas yi vingt mille trente mille quarante mille cinquante mille cent mille ci événement ñun bu ñu liggéey liggéey fay suñu emploi léegi nag ñoom tam dañuy ñoom ñu ñëw jaay ñu ñi palaas vingt mille trente amu ñu dara lu du loolu fay ñu luwaas fay ñu courant fay ñu dox fay ñu emploi fay ñu dara fay ñu patante fay ñu duut fay ñu dara ñëw rek waa mairie jaay leen ñu yàq ci loolu aussi ci la bokk amul amuñu gardien gardien bi ñu ñoo fay suñu bopp balayage bi ñu ñoo fay suñu bopp courant bi bu yàqee ñu ñoo defar suñu bopp donc loolu côté boobu état bi moom góorgóorlu mun na nekk nag état bi mun na nekk ci commune maire commune bi loolu loolu manqué na salte na amul sécurité buñ lay sàccee sax mënoo dem mairie koy koy waxal mi ba fekkee mairie ci boppam euh, wax naa euh, jamono balee wax naa maire ma ne ko man dafa am li ma xalaat mu ne ko loo xalaat ma ko HLM lu bon bon am na trois mille et quelques euh, villas ma ne ko da ngeen recharge nit ñi euh, euh, yëpp ma ne kër bu nekk ngeen sax ko deux mille francs par mois deux mille francs par mois léegi ñetti junni ñetti junni deux lu bon bon dana dem dana dem ñaata xaalis la ma ne ko quartier bu nekk wala commune bu nekk ngeen jëfoo ñaari wala benn nit ñooñu chaque mois kër bu nekk course deux mille mun nga jënd oto oto boobu waa xale xale asalem ñoo nekk ci oto bi pour bale bale ma ne ko chaque mois bu ñu course deux mille francs ma mun nga jël benn nit ñoo ñooy garder koñ yi ma ko koñ bu nekk wala quartier bu nekk ngeen kër kër fo ay nit ay xale xale koñ yi ñoo ñooy garder seen koñ ñooy bale seen koñ ñooy fay seen bopp chaque mois chaque ñaar aussi ngeen yokkar yeneen ñaar yi xëy na su ngeen ne fii man ne ko waxuma kii yëpp dina am employé de waaye bu waaye wana quatre vingt pour cent wala wala wala soixante pour cent dana wàññeeku wax naa loolu ci mairie bi kenn faalu te Sénégal nag yàlla du wàcc fi defar Sénégal français du ñu defar Sénégal ñun ñoo war a defar suñu bopp defar bopp bi nag mooy kenn du ko indi sa xalaatam mais en tant que nag jànguloo mënoo bind li ñuy wax yow xamoo dara donc ñu ngi ci xeex guddeex bëccëg mais amuñ fu ñu ko waxee mais en tant que ñun commerçant yi defe naa béy nañ suñu waat ndaxte kenn tudd mënul dugg Sénégal wala ay nga tudd mars ci àdduna bi te tudd mars la lu commune bi moo ko def de lu bi ñun ñi commerçant ñoo ko def parce que ñun ñoo jaay ñun ñoo jaay marché bi ñoo jaay réew mi bon donc loolu bon loolu tam aussi waaye pour daal mairie bi daal mooy depuis ay di jongo ba léegi kenn defu fii dara loo xam ne luy yokk marché bi la xanaa ki ko yàq rek loolu moom mun naa ko sumbat ko waaw kii nag ginnaaw bi ma waxtaanee moom ba nangu defar xëy na su ma baax na dañu war a ginnaaw jox ma marché moo tax ma sant moom dafa damaa wax mu dëgg man ne ko li may li may xalaat baax na est-ce que dana baax est que lii baax na wala baaxul keneen tam bu defoon loolu keneen bu defoon loolu xëy na bi dina mën a sens